asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 15 septembre 2020 ñëw ak yéen ci suñu lamb la xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi nga xam ne suñu lamb moom dafa xëy ñëwati ci li nga xam ne ci la ñëwoon waa Bawol démb daa am ñu ca génnoon daal di xam ne yi ki ki nga xam ne moo di Pape Thialis Faye moom dara doxatul seen digganteeg moom ndax lam leen la leen hélas cun daal di tontu xamal ne daal li am ba des mooy ñoom ñoo ñu wax la ñuy wax ñoom la engagé waaye moom la mu signé leer na nañ ak ka nga xam ne moo di ba tey yëglikaay bi nag nga xam ne moo di mbay ndewaan wala mbay ñi ngi bokk di ab entraîneur ci tafaatin waaye moom nag la mu xëy xam ne daal ne na seen digganteeg booy ñang daal na leer nañ ndewaanay wax de ne na existé ñëwul nekkul combat boo xam ne daal bu am la wala bu taxaw ñu ne ko lu tax mu ne parce que li tax mooy combat bes koy taxawal ba ku la joxe sa kàddu maanaam la koy dëggal mooy nga génn xaalis joxe ñu ne ko loolu daa amul ndewaa ne na Pape Télé Sow defut loolu tey suba waxi noppi maanaam daal ba fii ñu koy waxe ñaari dërëm joxu leen ko te nag loolu dèjà mënta am ba pare ñu naan tafaatin combat am taxaw nag taxawul moo tax ndewaa ne na leer nañ tafaatin amul combat tey ak Boy Niang suba waxi noppi la leen waroon daal ñoom defoon nañ ko maanaam waxoon nañu ba déggu tënk seen ay wax ñu ne léegi sec bañ leen joxoon mu ne sec bañ ñu jox sec la boo xam ne ay weer wala boog ay fan yoo xam ne ñaari dërëm newu ci sec balaa la boo xam ne daal boo ko retiré doo fa fekk cent mu ne lii moo tax ba nga xam ne daal kon combat ba la nga xam ne moom a ki nga xam ne moo di moom mooy manager bi wala boog mooy agent moom moo signé ak Pape Thialis te jàpp na ne combat ba am na mu ne loola moom moom la engagé waaye defe naa ne moom jàpp na ne daal moom moom mu nga xam ne mooy elastune waxam mënta gën a ëpp seen ay wax ñoom ña nga xam ne yor écrit ba di ko doxal muy waa Bawol mbooloo mel ni kon daal foofa moom soo bëggee dégg-dégg coow la mu nga fa ne gadd ci diggante tafaatin Pape Thialis Faye ak waa Bawol ya coow laa nga ne nii yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw tey wax nu ko leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na ñëw ci wala keneen koo xam ne ni moom bëri woon nag tafaatin muy bombardier war a bëre ne ni nag moo di Eumeu Sène yëglikaay bi ñëw ak moom ak fa mu toll ci ay at di 44 ans war a def ko mu mujj ci làmb ji yëglikaay ba xëy samp laaj ne fa mu jaar ak Modou ndax Bombardier bi yoon dana fa jaar nga xam ne mooy Eumeu Sène te bu dana doon loo xam ne guléet lay doon muy loo xam ne sunu làmb xëy ñëw tey samp ko dinu ko laaj leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne moom dafa xëy sampam dëndëm di laaj muy ka nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 ka mu sampal du kenn ku dul Gris Bordeaux moo faas Lac daal nee na daal Gris daal li mu jàpp ci moom ne na jàpp na ne moom oosewul wala amul fit wu toll ni di jël sama waas di ko encaissé lak daal ne na loolu moom su ko defee ne na bu keroogee Gris Bordeaux dina nekk juróomi lu mbër boo xam ne dana ko wan boppam fa nga xam ne mooy écrit face ginnaaw ña nga xam ne am na fu mu jaaroon ak ñoom fa nga xam ne mooy ca fas Lac de moo xëy tey waxe nu mel ni kii noonu li nga xam ne nii nag moo di làmb jeeg combat yi naan taxaw naag taxawul coow la ne nii yëglikaay bi di suñu làmb tamit xëy na tey def ci benn gëstu maanaam daal bu corona bi continuer naka la promoteur yi def ak combat yi nga xam ne taxaw na wala làmb ji ñu ne kon ara xëy wut ay solution bokk na ci solution ya xanaa pay per view wala ay sponsor yoo xam ne yu dëgër dëgër la yu am doole wala bokk ay mbirum la nga xam ne mooy droit de télé daal maanaam xanaa kon des na ko wuti ngir jéem a xool ne di def ngir làmb ja mën a am sunu làmb xëy ñëw tey wax nu lu mel ni kii noonu mbirum seen seeba nag ak kay jël bang ba tamitam am na koo xam ne tey yëglikaay bi xëy na dalal ko muy burxaan wadd di ab manaatse yore booy ñang ba pikin burxaan moom la mu gis ne na ki fii ñëw daal wala jël place u Alioune Sarr jàpp ne ne war naa nekk koo xam ne ni day nit ku nangoo liggéey lay doon nit ku nangoo waxtaan ku ubbeku bàyyi xel ñépp itam nit koo xam ne jot ko du jafe burxaan ne na kooku daal jikko yi moom war na koo yor waaye am na koo xam ne moom tànn na ko bu ki mu tànn du kenn ku dul Babacar Diouf ma nga xam ne wàllum règlement discipline daal commission ba moo ko yore di ko doxal Bourkhane jàpp na ne kooku buñ ko dénkee làmb ji gis na ne moom dana ko doxal ndax naa jàppale làmb ci loo xam ne ñaa ngi koy yëg wala lu ñu yëgul ci côté yu baree baree bare yàgg na faa taxaw moo tax Bourkhane jàpp ne moom buñ ko dénkee li mu gis daal mooy doxal moom dana ko def ñii moom ñu ngay doxal ndànk ndànk muy waa jaxaay mu bennoo ñoom daal yëglikaay bi ne na cinq victoire am nañ ko ak quatre défaites moo tax sunu làmb jàpp ne daal ñu ngay raam de ndànk ndànk ñoom waa jaxaay di doxal ndànk-ndànk yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw tey ëllëg ñu boobu écrit ak na niy doxale boo bëggee dégg-dëgg yëglikaay bi ne li am ba des daal ka nga xam ne moo di soq de moom itam xale la boo xam ne daal mu nga doon yéeg waaye daa mel ni daal fa mu taxawee bii yoon dafa xawta baax wala am boog lu ko arrêté yëglikaay ba xëy ñëw wax nu ko booy waalo ak ka nga xam ne nii moom moo di góor ma nga a ñagas daal na wax na ko ba dëcceek ri boobu xam ne nag moo di caatu lingeer ak yaaxam deux ak ki nga xam ne mooy ibu sos maanaam daa mel ni écrit boobu nga xam ne mooy jaxaay satisfaire nañu leen wala boog daal nañu doxale moom tege na ci aw yoon am di caam nag may seen président moom ma nga xam ne moo jiite jaxaay mbooloo moom jàpp na ne daal a résultat ya taxu koo bonde maanaam daal mënees na caa jàpp loolu la yëglikaay ba xëy ñëw wax nu ko ca fa nga xam ne moo di di ca jaxaay buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di record mu mel ni kii nag record fa mu xëy ñëw tey mooy ci divorce boo xam ne jàpp na ne bu amee ci diggante Bombardier wala boog ci diggante ka nga xam ne moo di Gris ak Gaston maanaam ki nga xam ne nii moom kan la Gaston Mbengue di sacrifier ci diggante ma seen ak bombardier loolu daal la xëy ñëw di ko laaj moom ma nga xam ne moo di record leneen loo xam ne nii record xëy na tey ñëw ci ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne moo di record am na ñoo xam ne nii moom maanaam ñu ngi doon daje di def ay réunion muy ña nga xam ne nii nag ñoom ñoo di waa géej way yëglikaay bi na daal li am ba des nouvelle équipe bu seen CNC bu bees bi nga xam ne nii daal moo war a am mu mel ni ki daal écrit ya ak ña nga xam ne nii daal ñooy ay boroomi kàddu daal daa ni boobu ñu nga doon daje di réunion di xalaat daal li nga xam ne moom mooy future fédération yëglikaay bi di record a xëy ñëw tey wax nu ko ñeneen ñoo xam ne nii moom daje nañ fa nga xam ne moo di ca sali muy arbitre ya arbitre ya nga xam ne nii nag maanaam Sitor Ndour moo leen jiite daal la 11 ba le 13 septembre doon daje fa nga xam ne di bokk sali wala ca Mbodiène maanaam daal daje nañu wax seen xalaat nañ ko daan defe at mu jot xool nu ñuy def ba lamb ji maanaam daal mën a jëm kanam ak la nga xam ne nii moo ko wër lépp yemuñu ca ñoom ña nga xam ne ñoom ñoo de arbitre ya leneen loo xam ne def nañ ko fa nga xam ne mooy ca mbuur ka nga xam ne moo di Mamadou Diop moom ñu naan ko kase ma nga xam ne nag ci làmb la blessé woon boobu ba tey mu tëdd feebar dem nañ ca moom tamit yëkkati ab som dimbalee ko ko maanaam daal ca nañu toll wala boog ca la ñu yor na mu toll loolu record ba tey ñëw na dinu ko wax keneen koo xam ne nii wala leneen loo xam ne nii moom yëgle woon nañ ko muy combat bu taxaw doxoon ci diggante Cobra bu Pikine mbooloo ak Boy Faye ma nga xam ne léegi mu nga dóor dóoraat mel ni ki combat ba moom ba mu taxawee daal la fa daal jaare lépp doxe fa tabbi géej maanaam bañ ne taxaw na la combat ba yàqu ka nga xam ne nag moo di Cobra daal ne moom moo reseté combat ba moo delloo xaalis ba maanaam daal moo lànk kandaare ne léegi moom du bëri ak ka nga xam ne moo di booy fay keneen koo xam ne nii moom bëri ba wane boppam ba gagné lu baree baree ren ci saison bi nga xam ne moo taxaw muy Toubacouta moom daal 14 drapeau gàddu na ko ak 5 millions 850 mille francs ak juróom jibaam moom ma nga xam ne moo di Toubacouta wane na boppam bu baax a baax waaye am na loo xam ne neex na ko lool maanaam tur woo xam ne dañ ko koy faral di woowe ba mu xëy di ko wax mooy borom saalum ba nga xam ne daal ñu ngi ko koy wooye ba ñu koy wooye daal lu ko neex a neex la waaye am na loo xam ne tamit mooy ndam la nga xam ne am na ko ci kaw duut saane fa nga xam ne moo di ca Fatick ren waaye ak cinquante mille francs ya nga xam ne ñàkk na ko ca mu mel ni kon daal soo bëggee dégg-dégg yàgg maar Toubacouta ren moom loo ci mën a dégg daa mel ni ay mbiram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 kër ci bawal mbooloo nekk tamit ci staffu ki nga xam ni mooy euh, Tafatine moom ma dafa dafa génn nag mel ni ku jël contre-pied El mi waxoon démb ne moom dañoo am contrat bu wóor ak ki nga xam ni mooy Pape Thialis kii nag muy may ñi ngi nag tey weddi na lool nee daal tafaatin jotagul ba léegi dëbb na annoncé combat ba léegi jotagul benn avance nee nag Thialis Faye jox nañ ko ultimatum maanaam tey jii su fekkee joxewul xaalis ñoom dina leen libéré teg si tamit nee na jox na leen chèque mais chèque ba daal bu ñu demee banque dara dara amu fa Babacar waaw mu mel ni bu ñu jégee contre maanaam mooy wax joo xam ne bokkul. la waaw la El Hadj Thioune wax ak moom Mbaye Ndewane li mu wax. daa mel ni du benn. waaw El Hadj Thioune nag la mu waxoon démb bi ñu njëkkee génn wax dafa weddoon la ñu wax. waaw jàpp ne moom dëggal ne moom la ñu signé signé nañ ko dañuy bëre ak Boy Niang mm-hmm. Mbaye Ndewane mi nga xam ne mooy entraîneur Tapha Tine bokk ci staff bi mais en même temps di nijaayam Mbaye Niang tey moom moo génnaat gën a indi ay leeral ci mbir moom mm-hmm. moom li comme tey nee na moom seen combat ak Boy Niang existé wul defe naa moom mi ko wax tamit am na fu mu ko teg te nijaay la teg si yaa ngi dégg te itam euh, yaakaar naa ne xëyu la xëy rek taxaw wax ne sañ wax lu mel nii su xëyee ñu dégg ko micro mu wax ne ñoom encaissé wuñu cent franc jotuñu cent franc sec bañ leen jox amul xaalis yaa ngi dégg te tay la ñuy bu tay passé pare na ndax ñoom dañoo am cër ci ci ci mbër mi defe naa lu tamit xel mën na ko nangu agent bi waxam mën na valable waaye mbër mi ñi koy tàggat ak ak li entouré équipe bi tamit defe naa ñun tamit war nañ ci am cër bu toll ni mm-hmm. war nañu mën a wax parce que ñoom mbër su jëlee avance ñoo koy lu muy def ñoog moom a koy defandoo fa mu jëm mook waa écrit bi lay doon lépp waaye ndax mbër mi mënalul boppam moom kese dañ koy encadré li ci voilà si écrit lan te écrit dafa naa dafa am ay texte am ay tey lu ko tënk ami sart mm. yu ñuy doxal kon nag li ñuy wax foofu mooy li ñu mën a wax daal ci diggante ñaari ñooñu ñaari pàcc yi mooy nañu fexe ku ci ne la nga wax nga respecté ko muy Pape Thialis Faye la mu wax na ko jéem a def bu fekkente ne am na lu ko gàllankoor mu wax leen lu leer nañ ne lii moo ko gàllankoor muy lu ñu mën a téye yaa ngi dégg ñoom tamit ña nga xam ne ñoom ñoo seq ak moom ma leen di wax bu fekkente ne méngoo nag la na mu doy leen mm. bu ko defee ñu mën a continuer avancer ñu ñaan yàlla moom mi tëgg combat wala moom mi ko déclaré yàlla na ko réussir muy Pape Thialis Faye comme ni mu koy waxee moom laay ñaanal promoteur yëpp rek mais li ñuy noppal rek ci àddina ak fu mu mën a doon rek mooy lépp looy wax rek wax ca na nga ko teg ci siraatal mustaqim na nga euh, dégg naa ñu ne sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daan na wax mu nekk yàlla rek a ko mën waaye man Cheikh Mbacke lu mu wax nar naa ko nit ki looy waxati rek na nga ko nar mais loolu la leer ne naroo ko doo ko def mm-hmm. bu ko génne sa làmmiñ ñu di ko dégg mm-hmm. bu amee ay boo ko waxee tamit ba ñu dégg ko mu amee gàllankoor leeralal la tax mu am ay gàllankoor waaw moom tamit may may ngeewante ma nee na tee daal mooy ultimatum bi de. teel waaw waaw ah waaw am nañ si droit bu leen neexee mooy li ma wax sànq rek comme ñoom ñoo yor seen mbër te combat bañ ko déclaré defe naa avant tabaski lañ ko déclaré ba ficelé ko bañ na taxaw na ba ñu ñëw fii def signature presse bi ñëw ñu siwal ko àddina bi yëpp dégg ne tafaati nag booy ñang seen combat taxaw na buñ toogee ba tey ji ñu nekk ci mois de septembre te defe naa loolu mois de juillet la woon septembre muy 3 mois tey ñu ne jotuñu xaaj ba heure bi moom ah bu leen neexee am nañ droit waxee nu mel ni ki noonu waaye du tere nag ma ne rek nañu waxtaan rek parce que mm. itam yaakaaruma ne Pape Thialis Faye xanaa dafa am xalaatu ñëw jël leen nii rek taxawloo leen di leen kay loo bañ leen a jox avance mm. dama xalaat ne xanaa dina leen ko jox laa foofu nga xam ne mooy Lac de Guiers jógee Bawol dem nag fi nga moom daal mi ngi défier boobu ba léegi na jël avancé ndax nee na su jël avancé mooy nekk cinquième at bi nga xam ne euh, ngay mam dana ko jaarale fa mu ko bëgg jaarale maanaam maanaam ñoom ñoom ñaar seen diggante xaw na yàgg lag ak giri moom bu ma juumul am na benn rek combat bu amati woon démb jóob <laughs> keroog mu ngi defar benn tiset sol ko ni naan ko giri ñëwal ñu bëri ngi dégg mu mel ni loolu lépp li ko waral mooy dañ jaay adversaire mm. yaakaar na ne lag de guerre de tey bokk ci mbër yi gën a jafee daan ci Sénégal loolu moom lu Sénégal yëpp def constat la si moom ndax sérieux ci entraînement am ndax itam jabar yoonu yàlla dafa wax nga dëgg ñoom ñaar dañu war a bëri parce que ñaari bagarreur lañ comme nit ñi xamee te ku ci ne da am loo jiite muy écrit ak écrit face mm. de am na lu mu def biir écrit am na mbër yu fa daan mm. yu bari daan na fa ñeenti mbër suma jumul Gris Bordeaux daan na turandoo ki nga xam ne mooy Lac de Guiers de Guiers yaa ngi dégg kon defe naa tey lamb boole na leen waaye li mu si xaw a jaaxal rek li Gris Bordeaux dugg te amaguñ ci leer leer kan loolu féete na boor à 100 pour cent maanaam seexatu le promoteur parce que ba tey déggaguñ ci lu confirmé rek dama Gaston dara liyeetu leen loolu moom ma ci xaw a jaaxal waaw ne combat nag ñëw na suñu njegee nag géeja waaye nañ dem fi nga xam ni moom mooy muur neñ nag ginnaaw nag bu mu daanee ki nga xam ni mooy Modou Lo ak euh, Balla Gaye est-ce que tey ji Bombardier dina mën a daan nga xam ni mooy Eumeu Sène waaw ah loolu daal dañ naan comme moom moom moo apte pour nekk sport di di di bëre ba tey xam na wér-gu-yaramam xam na entraînement xam na ay capacité am defe naa tey bu toogee ba nangoo jël avance war a nangoo war a bëre ak Eumeu Sène defe naa am na yaakaar moom ci boppam Bombardier ni war na mën a daan Eumeu Sène parce que tamit nit ki moom olof li muy wax rek loo xam-xam ma dem ba ma dem ba gën laa xam boppam Bombardier moo gën a xam boppam tey bopp nit ñi yaakaar naa nag tey defe naa ci ni ñu ko gisee en tant que professionnel parce que Bombardier li ma lay wax rek mbër gënu ko nekk professionnel si làmb defe naa carrière am ba mu ko entamé ba tey macha allah fi mu ko teg ci li ñu ku nekk professionnel la ba fi ñu koy waxee nii ba tey moo ko mën may mu am 44 ans mm. ñu naan la jeexalagul ci làmb bu mu war a bëri dernier combat am yàlla na ko bëree xaw ñu sa dernier la wala waaw mais licenciel ka daal war na bëree combat bu ñu ni mooy dernier combat mais ndax mën na daan wala mënta daan moom dama naan ku jël mbër yaakaar naa ne war nga ko mën a daan loolu nga yaakaar bu jël ko mhm. Babacar journal bi tamit sunu làmb mu ngi xarmal leen nee nañu est tamit PPV nekk solution ndax Ibrahima euh, a bëree ak amateurs yi aussi mën a Babacar waaw du ma ne la déet parce que nag olof li mu doon wax du dañ taal bu téye tàkk fu ne lañ ko ëppee nday ko ba faal mm. bu fekkee corona bi dafay daaju ne fàng dàgg ne du dem ñu toog continuer ah ñu ne dara du du du bouger bi ñu sonnee xam nga xëyoon nañu xëy couvre-feu fi dëkk bi tëj dëkk bi yépp presque mm. génn bi heure lay am nga dugg heure mm. ñu ne marché yi tëj marché yi fi nit ñi dootuñ dem fii wàññi mais bañ bañ demee ba xamuñu nu ñu def nu ñu solution loolu lépp fexe nañu xool nu ñu koy defee lu mu ci mën a doon dañ koy booleeg lu koy accompagner lamb ji tamit pour man bu fekkente ne li dafa tëye dem des na ci solution ah mm. Ibrahima Faye loolu mu waxoon war na ci bàyyi xel ñu xool nu ñuy def pour mën a bëre lamb ji mm-hmm. wala ñu xool sax bu fekkee dañuy def ay thermoflash yu doy nga xam ne tam même bu dee jaay ticket sax kuy dugg si bu soo yaram xawee tàng ñu la nga taxawee ne yooyu yëpp des na ci sàkkum pexe parce que nag ah du ma la topp joojëm fu ngeen jëm daa soriwul <laughs> waaw Babacar ki nga xam ne nag euh, moom la journal bi tamit sunu lam daal tey muy Bourkhane War nekk manager Boy Niang moom daal lu ma gis daal nee na Babacar Diouf mën na remplace ki nga xam ne moom mooy Alioune Sarr Babacar Diouf nag moom ma yor Euh, président commission euh, discipline et pénalité Babacar. waaw mu mel ni que loolu Bourkhane Wade daal wax Bourkhane Wade tamit comme ni nga ko xamee defe naa ne euh, du ko ndaw ci làmb. bien sûr parce que ku menacé Boy Niang te lu jiitu booy Niang yaa ngi ci làmb xam ci lu bare bare nekk tamit bokk ci menacé yi jàng yi. parce que ku xam texte la. xam texte yaa ngi dégg kon defe naa tey bu waxee ci personnage bu Babacar Diouf jàpp ne war na mën a jiite ah dañ koy nangul waxam jooja. parce que li tax mooy damay jàpp ne képp ku fi génn pour man Keba mën na jiite keneen génne Tyson keneen génne nangam keneen génne nday faal pour man ci la ma jàpp ci sama xel buy rafet mooy la wax ci xam-xamu borom lañ ko teg waaye duñ ko teg ci na moom xam-xamu waa ji ak niveau intellectuel am ak bilan bi suñu lam mi ngi dalal ki nga xam ne mooy écurie jaxaay mbooloo nee am nañu 5 victoire ak 4 défaites moom daal mi ngi ñëw nànk ndax ndax nekkul écurie bu yàgg te boo xoolee ñu ngi góorgóorlu mm-hmm. combat yi bëriwul donte nag waaye nag ñu li olof yi wax lañ leen di wax rek xëcc moom bu daggulee rek waaw day ñëw rek nañ jàpp bañ a bàyyi suñu jógee nag suñu làmmee dem nag record record nag tey nag si xalima Abou Ndour dafa dalal ki nga xam ni moom mooy Gaston Mbengue ak ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux neñ nag ginnaaw nag bu Gris Bordeaux nee na moom day delloo avance bi divorce bi daal mën nañ yàq mën am na digganteeg promoteur bi ak ki nga xam ne mooy troisième Tigre de Fass neñ nag kan mooy euh, kon la Gaston nar a sacrifier entre Eumeu Sène ak Bombardier ndax euh, ñoom ñaar ñëpp nee nañ yor nañ ku si mel ni boog Eumeu Sène boog jël na avance bi nga xam ne mooy Gaston Mbengue <laughs> divorce de yàlla mi ko digle ci sëy tax ñu naan sëy divorce xam nga yàlla ne na sëy nangu na mu tas daganal na ko waaye divorce xam mooy sëy bu tas rek waaw mais gënalu ko mais daganal na mais da mën na ne mais gënalu ko <laughs> waaw man nag loola ci laay tënku moo tax hmm. ma ne diggante Gaston Guir yàlla bu ci divorce am yàlla nañu mujj déggoo hmm. parce que ku ci ne xëy na da génn rek wax li ne ci yow hmm. mais damay ñaan ñu déggoo pour Guir mën ko bëreel ñu bëree combat bi waaw ah, bu amee nag bu fekkente ne loolu maanaam promoteur bi mooy uti yeneen plan parce que boo defee plan A mu yàqu nga dem uti plan B plan B ba nag bu keroogee dina am ci ku mu tombe ku mu mm. tombe nag dañuy la rek man <laughs> noonu noonu laa koy gisee man voilà de lutte du nañu benn réunion week-end bii nu génn foofu sa Guédiawaye ñoom daal ni ngi jaf ay joxe daal seen ay idée pour xool daal naka la mën a liggéeyee ak CNG bi di ñëw bu bees bi ah waaw loolu daal defe naa lu am solo la waaw jatu rek nib soccet comme naaw balaa ñu lay loolu ñu def am na solo teel a waxtaan teel a xool ñoom ni ñuy ñëwee pour que ku fi ñëwaat di équipe bu bees ñu xool nan la ñuy ànd ak yow liggéey loolu lu am solo ñu ngi koy saluer bu baax a baax mhm. ñeneen nag ñi nga xam ne ñoo woon réunion mi nga xam ne mooy arbitre yi mooy ñoom si toor ak ñooñu xam ne leen ràjjee woon ak ñi nga xam ne leen suspendre ñoom daal weekend bi ni uh, nga xam ne daal mën nañ am nañu yaakaar daal suñ ko defee làmb dina gën jëm kanam waaw loolu am na solo defe naa ay at ngi ñu di ko def mu ngi am am solo cinquième édition kon defe naa ne yàgg nañu chaque année bu làmb ji tëjee ba ñuy xalaat nekk mu ngi waaj ubbeeg yu mel noonu ñoom ñu daje ca sali ñoom arbitre ci seen jiital président mbir yi mu gën a baaxee ren nag tombe nag xëy na ñoom am ay difficulté ñu aj leen dàq ñi fii mais terewul def nañ ko loolu moo lay wan ne ñoom ba tey làmbi réew mi moo leen intéressé arbitre la ñu malgré que ñu ràjje ñi dàq ñi mais terewul fañ tegoon seen tànk ñu ngi fa continuer di ko teg di def seen ay li nga xam ne mooy seen ay daje di xalaat luy avancé loolu làmb yemuñu ca jël nañ seen alal sax yóbbul ko ki nga xam ne moom mooy kase an dimbali ko muy loo xam ne daal ñu ngi koy rafet lu ci profité ah di kase waaw waaw Mamadou Diop di kase boobu ndey ma dem naa ba Mbour seeti ko ci li defe naa may su ma jumul site internet bu ko njëkk seeti man Babacar loolu la yàlla dogal man ak Lamine ca Lit TV waaw loolu moom yàlla def na ko ñuy ñaan yàlla daal arbitre yi loolu ñu def loolu am na solo yàlla na nekk solution rek bokk ci solution yi defar lam mhm. parce que ñoom it ñu ngi béy seen waar waaw nag keneen ki nga xam ne nag promoteur bi tëggoon nag Boy ni nga koy wëtal ab adversaire def naa jamaïcain la encore jamaïcain la waaw ba tey <laughs> jëm sama waa ji mu mel nii ah y'a quelque chose xaw ma lu ko topp waaye nag ñu ngi koy ñaanal rek waaye du moom rek fi mu ne coowal lamb ji moom bëri na ndax Gaston Mbengue nga ak coow euh, nu mu tudd Pape Thialis Faye nga ak coow keneen nga ak coow comme moom mi xale itam bu bu ay mbiram amee coow itam an na ko muñ rek ndegam ñu ko mat ay kilifa ñooy coow ñoom am problème waxatuma la mi li ñuy ñaan daal <laughs> mooy Boy Faye yàlla daam adversaire yàlla na ko jamee kay gisal adversaire moo Cobra nag ne waroon na nekk combat bu neex a neex mm. waaye malheureusement Cobra nee na dootul bëre delloo na ba mais nag loolu waaw na ah bien sûr nday kumba Fall ñi me naa nday kumba ba na avance a ngi nii nga xoolaat ba mu neex la nga ne noo bëreetuma ak moom ñemeetuma maanaam bëggatuma bëre ak moom ku la ci dóor de ah, maanaam ñeme maanaam maanaam li nga xam nga bëre moom len na koy def da ngay nangu bëre ak adversaire bi ngir ñeme bëre ak moom wala nga bañ a ñeme bëre ak moom ñeme nag ak ñàkk ñeme maanaam bu ñu ko waxee mooy yow am na foo teg say mbir ba ne du ma bëre ak moom que ce raw nga ko wala tolloo ngeen ci ndàngam ak sàngam mais waxewu ma ñeme ci maanaam ragal booy fay Cobra du koy ragal booy fay ndax li mu def ci làmb euh, ci ci lutte avec frappe booy fay yegg seegul ci niveau ah bien sûr ah, voilà Babacar na ñëw nag si lutte simple bi ki nga xam ne mooy Toubacouta Eh, nu koy gën a eh, nu koy woowee borom Saalum. borom nee na daal am na 14 gagné na 14 drapeaux gagné aussi 5 millions 850 mille ak 8 bë. 8 nag juróom-ñetti nag. waaw booy ba Toubacouta daa mel ni bi saison ba continué woon ah macha allah kon félicitation <laughs> waaw macha allah waxuma sa gétt gars yi 5 millions 850 mille yam ci jot a dajale mu mel ni kon moom itam xale la boo xam ne loolu mooy la ne rek lambi simple ji xale yi ci ne ah nañ leen di bàyyi xel ci lamb ji lañ bokk dañuy wane seen bopp de yaa gis boo yi. yaa ngi dégg boo yu garaaw ngay gis ay Doudou Sané ay Ganja Fama ay xale yu mën a bëree ay. ay arobas ay ngoon ndëpp ah boo yu doy doy waar di ñëw. te itam noonu ñu ñëwee moo tax euh, li nee naa leen yéen bëri simple yi ni ma gis ni ngeen di compétir pour ngeen bëri ci frappe bi léegi du ah, yomb de. ah dañuy bëri chaque jour ñu ngi bëri di am xaalis am toppatoo. mu ngi compétir di gagné jël leen ci li dafa frappe bi des koy xoolaat de leer naa ñu laa la wax. Babacar nag si kàddu yi wooyee. voilà waaw arobase. voilà Babacar nag si yoon leen tàggoo di leen jox dig daje fii ay weer yu néew donc di nuyu sama yaay merci nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu samay xarit. ki nga xam ne mooy astandine sama seex boobu noonu na Khadija Diallo di nuyu maam Diarra Penda Rokhaya Grand Fallou. ak bébé Asta Ndine depuis euh, aussi di nga nuyu ki ne mooy Abdou Gueye Baye Fall jàmm ngeen Pape Cité aussi maa ngi koy nuyu. di nuyu képp nga xam ne daal yaa ngi ñuy rek internet yi duñu leen mën a fàtte di leen ñaanal jàmm suñu soppe yi waa Petersen chaque jour moom mënu bañ di leen tudd ñoom Cheikh Lambaye ñoom Jib Sène xam nga Omar bu Zos duñu leen mën a fàtte fii tey Babacar bu Modou Lama moo fi génn maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom tamit di suma xarit di suma turandoo nekk ca Petersen di nuyu grand lépp di ko ñaanal jàmm a yokku di nuyu internet yëpp pour yaay Sarr tamit maa ngi koy bëggee bu baax ma jumul sama ngi Sénégal a a baax bu baax a la wax ne yàlla na yàlla yokk xéwal yi barke nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam euh, démb dañu setaan ci télé yi li ñu doon def Tiwaawan ñu liggéey jumaa ji mm-hmm. loolu di lu am am solo comme li nga li ma ko ko waxoon fii démb ñu gis ñoom Jóob si gis ñoom ñëpp ay ki nga xam ne nii moom mooy Dame Diop Mansour ñoom ñëpp ku ci ne yëkkati sa alal def ci ak na mu toll waaye ñu daf ci am koo xam ne daf ñu gën a marqué muy Aziz Ndiaye parce que daf ñoo jegeñ di suñu waay di itam bokk ci ñun ñu gis ko mu def lu ama am solo muy 250 millions. te mu ne ko waaw te Aziz defe ah, wax dëgg yàlla ñu wax ko ñu bañ ko wax am na ñu bëri ñu muy motiver kon yàlla na jàmmam yàgg mu mel ni kon daal kër boo ci bokkee waroo na nangoo des ginnaaw mm-hmm. te vraiment loolu mu def sest bu rafet la ak ñeneen ñi nga xam ne def nañ ko mais jërëjëf daal Aziz ci loolu mu def loolu tamit defe naa ne lu war a am la ndax tiwaawoon la bokk fa la yaakaar te nag Ndeye Coumba fal réew mi kër la rek mais ku ne am nga ëpp néeg bu guddi jotee sa néeg ngay dem kii ya nga Njaasaan kii ya nga Touba kii ya nga Yoff nga Euh, feneen ki ya nga ca chrétien ya mais ku ci ne rek su def jotee la nga yor ak na nga toll def ko ci fa nga bokk parce loolu du yàq dara te yéen ñi des ñëpp jàmm. loolu am na solo Babacar. jaajëf jaajëf.